yonentu moo ko tuddee borom muus nga dafa amoon muus moom daan yar bëgg ko lool yonentu tuddee ko borom muus mi adee yàlla na gërëm allah laalam ci moom mu ne anna rasulallah nako yonent allah wel alay ci moom wasalama doole ko musal qaala wax na abu xarera tu nee yonentu nee na baadiru na ngeen njëkkalante bil amaali ci jëf yi sabaan juróom góor góor leen def lu baax balaa juróom-ñaari yi ñëw te boo jàngee xadis bi da ngay dégg ne foo mën a toll rek na nga njëkkalante def lu gërëm yàlla te da ngay xam ne ni seen yëpp ñu ngi daw ci gannaaw alali àdduna yaakaar ne bu amee àdduna dañuy door a mën a baax fekk àdduna ci yu lay fàttaloo yàlla ci la bokk dangaa war a góorgóorlu baax sax defar say jikko balaa àddina di dikk sax far àddina ni ko Cheikh Tidiane waxee rek noonu la mel comme ndoxam géej nee na noo ko mën a tànqee mu weex tànk nga lu bari dafa weex rek kenn mënu koo naan lu tuuti nga tànq kenn mënu koo naan ci digg bi nga tànqee mënu naan ci wet gi nga tànqee kenn mënu koo naan àddina loo ci mën a am rek dootee am naqar ñun ñëpp ñoo bokk luñ ciy dund tey nga am lu la neex suba nga am lu la naqari moom la ñëpp di dund kenn muccut ci nag moo tax ku wax ak ku noppe fi yam waaye ku nekk am na lu muy demaale di ko sooxaale te neexu ko bu la fitna dalu tey dana la dal suba waaye xewal gi du sax njàqare gi du sax comme nag àdduna noonu la mel bu <laughs> bul yaakaar ne boo ci amee nenn moo lay tax a noppalu ba mën a ba nga mën a jaamu yàlla sa tey tey jii ngay commencé jaamu yàlla ko tey bul xaar dara pour jaamu yàlla lépp war a xaar jaamu yàlla waaye yàlla waru xaar dara ndax loo ko xaaree rek bu ñëwee mën naa dootoo ko tara ci far moo tax yonent yàlla balaa juróom-ñaar di ñëw njëkkalante leen jaamu yàlla mooy balaa juróom-ñaar di ñëw bokk na ci jaamu yàlla ngeen dem jàngi moo njëkk ndax daganul ci mu kalaf muy def dara nga xamul lu ci yàllaati kon gaawal jàngi balaa yii di ñëw nga profité am xam-xam balaa yii di la gàllankoor ba nga nekkee ndaw am kàttan amoo leen lu la jaaxal sa lépp ñu gàddul la ko yàlla mayul la xeram wut xaalis mayul la kàttan goo mën a liggéeyee dara waaye may nag xel mu rëy mu mën a mokkal loolu mooy demal jàngi wallaay waajur bu bàyyi sa doom mu dem ba màgg te defu dara ci bopp bi ameel nga ko àq ndax yàq nga ci moom temps bu rëy rëy ba muy xale ba xàmmee xoolal ni yàlla waxee ak yow daf na xale bii de bu dee liggéey nga ko soxla rocci naa kàttan nga mu mën a liggéey ngir boo ko soxlaa liggéey bu dee dangaa bëgg mu businessal la mayu ko rocci naa xel mi ñu businessé ay milliards boo ko joxoon si moom it mu seeyal ko lépp lu jëm ci wàllu àdduna xale bu mënu ci dara xelam ak xelam takk mu jox ko ci loo xam ne mag ñi sax amuñ ko loolu loolu loolu lu muy tekki mooy na dem jàngi parce que jàng rek la mën a def di xale ci jamono xale bu jàngu lan lay def kon yàlla wax naa ñëpp na leen xale yi jàngi seen jamono ndaw balaa yii di ñëw balaa juróom-ñaar yii di ñëw nañ jàng ba am xam waaye yar leen xale yi si jikko yu baax ba ñuy nekk xale balaa juróom-ñaar yi ñëw ndax mag kenn mënu koo yar mag ñi daan wax ne yar mag mu ngi mel ni fekk bant bu wow dëng nee nañ ko jubbanti damm rek bant bu demee ba wow dëng boo koy jubbanti da nga koy damm magit boo ko nee jubbanti ngeen yàqoo ki jaar fii kii jaar fële ndax dëng na ba pare kenn moo du si dara waaye bant bu tooyee moom mën nga ko biij ba mu jub bu dëngee moo tax xale bu dëngee mën nga koo jubanti waaye mag mu dëng kenn mënu si dara yàlla rek a man dara kon lii hadis bi bëgg wax gaaw leen jàngal xale yi gaaw leen yar xale yi bara yii di ñëw seen kanam xale yi nañ jàng nañ yaru balaa yii di ñëw waaye imagine am sa doom di xullee rek di ko xool mu lay xool mu ngi nekk xale nga di ko xool mu lay xool muy màgg ba tëla jàngut defaruwut jikkoom defaruwut tooñ nga ko de ndax moom xamul dara waaye jur yaa ko tooñ te kullukum raain wa kullukum masulun an raiyati kenn ku nekk seen sàmm la waaye ku nekk dañ la laaj naka nga doon sàmmee lañ la dénk kon njaboot gi boo leen bàyyee bañ màgg jànguñ yaruwuñ am nga sa responsabilité gaaw leen ci jëf lu baax mooy gaaw ci jàng ak yaru balaa juróom-ñaari yi di ñëw nga fekk jàng ngeen yarul ngeen mu ne hal tantaziruna ndax da ngeen di muñandiku illa faqran lu may ñàkk mun si yéen bu aji fàttaloo ni mu ne li seen kanam lii rek la gis nga su ngeen góorgóorlu seen ndaw pour jàng yaru benn yàlla dogaloon ne suñuy ñàkk ñi ngay war a bokk xam nga ku yàlla dogaloon ne dafay ñàkk lu mu mën a def tamit day ñàkk da dem ba ñàkk gi sonal leen soxla yu ñëw te amu leen lu ngeen ko fajee dootu leen mën jàngati du ngeen amati éducation bu baax mënutu leen yaroo ndax fa ngeen waroon a yaroo paase ngeen ko ndax da ngeen a xaar ba ñàkk goo xam ne bu ngeen dikkalee ngeen fàtte sax seen soxlaay bopp yi fàtte jaamu yàlla fàtte li leen war xanaa moo ñàkk day fàttaloo nit li ko war lépp ñàkk mën naa tax waxtu julli jot sax yow ngay kërti kiri ba waxtu woo paase ñàkk man naa tax mbokk ya nga waroon nemmeeku fàtte nga leen taratoo leen sax mm. ñàkk bon daf lay fàttaloo say waru gar li nga war a def ñàkk daf la koy fàttaloo yonent nee na amaana loolu rek moo nekk seen kanam kon gaaw leen ñàkk googu di ñëw fekk yéen yaru ngeen am ngeen jikko yu baax jikko yooyu sax mën naa oyofal ñàkk ga may leen alaxira même bu ngeen amul àdduna ndax da ngeen bëgg a xaar ba ñàkk ñëw ñàkk goo xam ne bu ñëwee da leen fàttaloo lépp fàttalee leen seen ngor am na xam ñàkk moo leen fàttaloo seen ngor ñu jaay seen ngor lu bon lu ñu dugg ci ñàkk moo leen fàttaloo fañ jugee xamatuñ sax ne ñoom suñu baax lañ bokk xamatuñ ne jëf yi xelut ci ñoom mu nekk ci yu bon ndax ñàkk gu ko fàttaloo ñàkk fàttaloo la sa dignité nga topp ci gannaaw nit ñi di yelwaan rek kooku kañ lay tal jaamu yàlla ba ngay am kàttan dara sonul la benn soxla taloo yàlla jàngoo juboo boo demee ba ñàkk nag soxla yi tegu sa kaw nan ngay tareeti jaamu yàlla nan ngay tareeti jub ñàkk daf lay fàttaloo loolu kon gaaw leen lu mel ni ngeen war a mel balaa ñàkk di ñëw ndax am na ñoo xam rek a nekk seen kanam ndax lu ñu mën a du ñu am yàlla dogalul si ñoom am bu dee yàlla dafa dogal si yow amit góorgóorlu jaamu yàlla balaa alal jee ñëw yaa ngi dégg de tey rek lañ xaaral door a baax man damay xaar ba am door a baax yéen ne déedéet gaawal baax balaa alal jee ñëw aw ndax da ngeen di xaar rinan koom mut ri mut riyan bu leen di bewloo ndax da ngeen a xaar ba am alal yoo xam ne bu ñëwee rek bewloo leen ngeen door a bëgg a jub bëri na koo xam ne alal la ko yàq de njëkk muy am alal ku jubloon waaye ba mu amee alal rek la beew loolu ñàkk xam moo koy waral kon gaaw leen jàng defaru balaa alal di ñëw fekk jikko na ci ndax alal dafay bewloo nit bew mooy mu yëg loola sa bopp may loola fit nga mën a tooñ tooñ gune te doo ko faale bew mooy jéggi doyoo ci tooñ ànd ak fit nag ak sañ-sañ ci li ngay def ku la neex tooñ ku la neex wax lu la neex ku la neex def lu la neex faareetu xàq yàlla yi julleetoo wala respectoo ko xoor sax bu la neexee nga xoor bu bañ a xoor mbiri àllaa xalaat sax bu ñu waxee nga si commencé duuti léegi ah est ce yi ñuy wax yooyu xam na ñàkk mën na laa yeggale foofu dem ba def ñëpp morom wala nga jàpp ne yaa gën ñëpp sax amatoo kilifa amatoo dara ku la neexul nga noggatu ko koom ci foofu rek la lay jëmale xam nga ne loolu day yàq jikko lay defar jikko mooy xam-xam bu ñu waaye alal kese moom day yàq jikko bu àndee xam bu ñu jëfee nag dangatu alal ja dafa fekk nga am lu ko saafara yàq gi alal ji waroon def ci yow fekk na sa xam-xam mën na koo saafara sa jikko mën na koo saafara su boobaa mën ngaa bañ yàqu moo tax ngeen war a góorgóorlu def ay jikko ci yéen def xam-xam ci yéen balaa alal ji nga xam ni kum dugg ci moom mu beew di leen dikkal boobaa bu alal ñëwee rek da koy mën a téye normal utiliser ko ci li ko war a utiliser way laa alal yow lay njëkk a yàq da bu la la ndax da ngeen a ñëw koom goo xam ne bu ñëwee ngeen door a jub yonent ne balaa loolu di ñëw alal dafay beewloo doomu aadama bu amee rek bew dootu nekk ci nit ki mu war a doon dafay tooñ ba pare jàpp ne am na sañ-sañ ci tooñam ki du ragal kenn du faale kenn du jox kenn cër lu ko neex mu wax lu ko neex mu def alli àdduna foofu rek la lay jëmee te loolu xam nga ne ci alkaan rek la jëme jëmee kon gaawal jàng di jëfee li ngay jàng balaa xalal di ñëw waaye damay xaar ba am xalal door a jub bu leen ko wax jubal léegi aw maradan wala ndax da ngeen xaar feebar mufsidan bi aji yàq yaramu nit ki gaawal jub ca ba ngay mën ndax amaana feebar nga sa kanam boo xam ne bu la yàq sa cër yëpp doo mën a dara yow mi kàttan am cawartaane mënoo jub mënoo jaamu yàlla mënoo wut xam boo demee ba feebar talatoo ko noo koy mëne foofu boo bëggoon ni kon njëkkalante leen ak gaar gaar yi gaaw leen balaa ñàkk di ñëw ndax ñàkk daf lay fàttaloo say warugar day tax bu boo bëggee jàng dootoo amati temps bi ndax soxla yu bari yi nekk sa kanam boo bëggee jub sax doo ko tarati ndax sa xel mi toogut benn place mënutut xalaat yàlla mënutut teewlu ndax mu ci soxlaa mi rek daw fàtte na sax li ko war ci digganteem ak boromam fàtte li ko war si digganteem ak mbindee fi ñàkk loolu lay def gaaw leen góorgóorlu balaa am di ñëw ndax am kum dugg ci yow beewloo la allahuma lu may koo xam ne jikko yu baax jiitoon na ci moom kooku moom bu ñàkk ñëwee du ko fàtte loolu li ko war waaye bu am ñëwee du ko beewloo te bu feebar ñëwee ba mën a tut yàlla bindal ko lam doon def ba muy mën te ngeen war a góorgóorlu balaa feebar di ñëw bu yàq seen yaram aw xaraman wala màggat mu faniran buy naaxloo góorgóorlu leen balaa màggat di ñëw màggat bu ñëwee def lay naaxloo yow doo li war a def kooku xam nga mënatu jub bu bëggee tax mënatul waaye bu dee ba muy ndaw mu ngi doon góorgóorlu bu màggatee ba naax gën a rafetee nu naan dafa xale moom la ko yàlla di bindal bu màggatee aw mawtan wala dee mujj seen bu aji doggali bu jeexal sa mbir yëpp di ko arrêté gaawal góorgóorlu balaa dee di ñëw ndax bu dee ñëwee fekk yóbboo dara ci àllaaxira perte nga yow ndax mënatoo def lu baax waaye bu fekkee yóbbu woon nga dee du la yàqal kon yonent dafa wax ne njëkk daante leen def lu baax balaa yii di ñëw seen kanam balaa ñàkk di ñëw bu dee def jàng nga yaru nga bu ñàkk ñëwee di ko mën a dund ba du la fàttaloo li la war waaye boo jàngul yaroo bu ñàkk ñëwee fàttaloo la lépp gën laa sànq gaaw leen góorgóorlu balaa am di ñëw boo góorgóorloo jàng yaru bu am ñëwee lu baax rek nga cay def waaye boo jàngut yaroo bu am ñëwee bew loola te ku bew sanku ndax mbugalam bew fii la ko yàlla fayee bala àlaxira gaaw leen góorgóorlu jamu yàlla jàng jëfee li ngeen di jàng balaa feebar di ñëw bu yàq seen yaram xam nga ne bu feebar ñëwee fekk dafa woon lu baax mënatoo def lu baax waaye bu fekkee yaa ngi doon jàng yaa ngi doon jëfee la nga doon jàng yaa ngi doon góorgóorlu bu feebar ñëwee ba mënatoo la gën a rafet ci la nga daan def moom la yàlla di bindal boo feebaree. gaaw leen góorgóorlu balaa màgget di ñëw bu leen di naaxloo di leen lottuloo nga xam ne su ngeen bëggee baax sax mënatu leen ko ndax bu màgget ñëwee fekk yaa ngi baax la nga gën la nga la gën a rafet ci la nga daan def ba ngay ndaw. moom la la yàlla di bindal ci boo màggatee ba mënatoo waaye bu fekkee defoo woon dara kañ ngay defati dara gaaw leen góorgóorlu balaa dee di ñëw ndax bu fekkee def nga lu baax jiital ko xaraa bu dee ñëwee fay rek moo la dese xewul rek moo la dese noppal rek moo la dese waaye bu dee defoo dara ba dee taxaw sa kanam xalkaan rek moo nekk sa kanam. kon yeneen su daan boo gisee ne mën ngaa baax mën ngaa jàng mën ngaa góorgóorlu pour def lu baax def ko. boo ko defee situation yu ñëw sa kanam sa mbaax googu dana la ci dimbale ba doo sànku soo ko deful nag am na situation yi ñëw sa kanam yoo xam ne daf lay gën a sànk bu ñëwee dootoo tara di sax mbaax même boo ko bëggee tey bëgg bëri na koo xam ne tey bëgg na xam-xam waaye mënutu ko am ndax passé na waxtu jàng ndax ñàkk gu metti gam nekkee ak soxla yu bëri tax na taratul jàng wala am na alal ja léegi tax na mënatul sax wut xam-xam noo ngi ca calcul ya ma ngi ca dégg nga topp toom alal ma nu muy def ba du yàqu nu muy def ba mu yokk ci loolu la nekk boo moytu nag alal ja doonuloo ko jikko ju ñaaw mu xeeb ñëpp bëri na koo xam ni ma nga feebar tëdd benn place yelantikoon mu wér ba mën a jàng mën a am xam-xam mën a jëfee lu baax waaye léegi feebar na mënatul ko yaram bi yëpp na amaan sax xel mi nekkatul fa fekkoon mu doon def lu baax ba léegi yàlla nga koy bindal tiyaab bëri na koo xam ne màggat moo ko jàpp mënatul sax dabaatal bu bëggoon lu baax bëri na koo xam ne dee na ba ngay mbébét naa yàlla delloo ma àdduna ma def lu baax kon nag yow mi ko man nii nekk ndaw dara darul la góorgóorlu ci hmm? hadis bi dafa wax ne nañ góorgóorlu ci jamonoy ndaw jéem a xam jéem yaru balaa problème yi di dikk ci waaw ah, lañ koy profité ba ngay ndaw góorgóorlul xam yaru balaa problème yi di dikk xam naa problème yoo xam ne bu dikkee boo bëggee jub sax mënatoo ko de waaye bu fekkee juboon nga nag mucc nga dégg ngeen amit dajjaal góorgóor leen balaa dajjaal di ñëw masiwu dajjaal dina ñëw mujj ak jamono masiw dajaal nag masiw dajaal rek la nekkul kuy judduwaat jamono ji ña ko xeew day xaar ñu xeewi ko rek mu ñëw ci àdduna bi ab saxaaba sax gis na ko te ba mu koy gis boobu tuuba gutoon tamit mu daari kon nekkul ay maanaa comme ni ko ñeen yi waxee masiw dajaal nag mën naa am ñu yore jikkoom waaye moom mbindeef la mu yeew tamit mu daari dem na ba gis ko wax ak moom nettali ko yonentu yonentu dëggal ko ne ko dajjaal la kon ku ku fi juddu barki démb lañ koo tooñ lu mu bon bon hmm. waaye nag mën naa yore di balaa dajjaal di ñëw mun nga woo firee ñaari maanaam mooy gaaw leen balaa masiw dajjaal di ñëw ndax masiw dajjaal bu ñëwee dana weddiloo ñu bëri yàlla wala nga ne gaaw leen góorgóorlu yaru balaa yàqkat yi di daje gis boo ba ngay ndaw boo jàngee jiital ragal yàlla ci yow def ci yow jikko yu baax ak ngor bu yàqkat yi dajeeg yow duñ mën ci dara waaye xale bu jàngul yaruwut lu riit mu topp ko te lu riit lu bari musiba la waaw xool leen saay-saay yi woote lu bon ña nekk seen gannaaw ñëpp ay ndaw yu xamul dara rek lañ wala boog ñoo xam ne ni yaruwuñu woon alali àdduna ak taari àdduna rek moo leen yitteel fu mu nekk rek ñu riit dem fa woote fi léegi lu bon te xaw a neex léegi ndaw ñu biris jëm ci yow mm. parce que jànguñ yaruñ xàmmewuñ waaye ñeen jàng yar leen kenn mun leen nax kon gaaw leen jàng yaru balaa naxaatekat yi dugg seen dund ndax buñ fi duggee yéen ngeen mën leen a jubbanti sax far te xam ne lii naxe la du dëgg waaye boo jàngut yaroo doo xàmmee lu ñëw nga ne baax na lu ñëw nga ne baax kon jiital leen jàng yaru balaa ngeen dajeeg naxaatekat yi seen àddina ñu yàq seen diine yàq seen waxtu nag loolu naxaatekat ñoom dañ lay utiliser sa jël jël sa waxtu te duñ la yar gaaw leen balaa ñoon di ñëw mu ne facharu gaaibin ki gën a xees ci ku fàddu yuntasaru bu ñuy xaar mooy dajjal ku fi nekkul ñu di ko xaar ñi ci gën a bon ku ci gën a bon mooy dajjal dajjal nag am na ay missionnaire am na ñu koy liggéeyal ñoo xam ne mission rek la liggéey sol mbubu yàlla joxoon nit ci lu leen neex dëgg la am du dëgg dara nekku ci former ay bandi yu nekk seen wet yar wuñ bëgg àddina di leen jox àddina ñu leen fenal di wax loo xam ni waxuma sax ku jàng ku jàngu sax xam ne li du dëgg jël xaalis àdduna nag alli àdduna di ko ngeree nit ñi noonu la dajaal di ñëw def bu ñëwee di mu jox lu neex ku ko mm, topput mu mbugal la ñii alli àdduna bi ñu jël leen di tëkku dajaal lañ de maanaam mission dajaal lañ yore gaaw leen yar seen doom yi balaa ñooñu di ñëw seen dund ndax bu ngeen leen yarul bu ñooñu ñëw rek këf leen waaye bu ngeen leen yaree fu lu bon taxawee ñu xam ne lii lu bon la ndax jàngoon nañ ko bu yàgg yeewu nañ bu yàgg na ngeen yar seen doom yi balaa boobu di ñëw awi saa gaaw leen góorgóorlu balaa bis penc di ñëw ndax bu bis ñëwee ñëppay rëccu wa saatu bis penc adaha moo gën a mën a jommale bu amaru moo gën a weex moo gën a naqadi fuuf mboole musiba goo mën a xalaat rek musibaay bis moo gën a naqadi kon gaaw leen yaru gaaw leen baax balaa bis di ñëw lii daal mooy saa yoo gisee ne mën ngaa jàng mën a jëfee li ngay jàng góorgóorlu si tàggat sa bopp ci loolu balaa muy wees ndax sa karam am na ay mbir yu bëri yoo xam ne bu ñëwee dootoo tarati loolu kon gaawal góorgóorlu balaa yooyu di ñëw boo góorgóorlu balaa yooyu di ñëw bu yooyu ñëwee fekk mënatoo yàlla bindal la nga daan def bu yooyu ñëwee fekk yaa ngi mën yooyu du la mën a yàq ndax sa jikko ji jiitu ak mbaax gi xam ne moo jiitu ci yow. bu defee lii lañ yoroon ci bi digal ñu profité ci mbaax ci yaru loolu nag xale yi nga ko ñoo ci gën a yell dégg nga. Hmm. waaw sama nga Tirmisi waxaale woon naa di ci hadis la hasanun bu rafet. haadaa in uriidu al-islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib. Assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.